Euh, waaw damay tontu Malal après ma ñëw ci parce que xama nga Malal c'est un artiste. Hmm. Euh, te man yàlla dafa dogal muy produire ay artistes donc war nañ mën a bokk jargon comme ni mu waxee divertissement. Hmm. ni mu ne Idrissa lu muy wax waa koñ ba. <laughs> ak ma ne ko Malal ni nga trouver woon yow noo waxee waa koñ ba rek Idrissa mun naa trouver leneen lu mu wax waa koñ ba. lu mu wax je m'explique. Hmm. malal mi par exemple dafa utiliser ñetti mots yu ma jàpp ni li waaja di wax ni c'est de gros hmm. mu ni lâche mu ni escroc mu ni manque de sincérité hmm. moi je trouve que lâcheté mooy man je suis un jeune du parti réew mi formé par le président Idrissa sec en 2011 man ak Malal dañoo tase ci ay conditions yu xaw a doy waar ñu tase kaso ñu tëjandoo ñu hmm. bi ñuy tase kaso man j'étais chef de service de l'administration du Sénégal mais dama bàyyi sama bureau climatisé ak samay teranga génn di xeex ci mbedd mi songi palais en plein jour ñu jël ma jàpp ma ni ma ràpp ci kaso bi man ak ñoom na Bocoum ma def 17 jours dig ñu may entendre ba pare jàllale ma yóbbu ma rëbës ma tase fa ak malal mi mu jaay sénégalais yi ni leen NTS le nouveau type de sénégalais bi nga xam ni moo war a wane mbaax moo war a wane yar boobu fekk na Malal jël na ay góoreem ak ay nitam ànd fekk nit koo xam ni comme ni mu def le président Idrissa Seck d'accordul ak moom mu traité presque de lâche d'escroc ainsi de suite kooku daa jël ay kurpeñ ak ay nitam dem dóor ko ba mu gaañu ñu ni ko ràpp tëj ko ci kaso bi man ak moom bi ñuy tase kaso moi c'était l'engagement pour mon pays moom c'était acte acte de vandalisme gros texte bu mu defoon ma jàpp ni l'escroquerie et la lâcheté c'est de dire aux Sénégalais que un nouveau type de Sénégalais nii lay doxee nga dem doxale noonu c'est ça la lâcheté léegi nag jël nit ni ko lâche nga escroc nga dafay waat ni mu comporté woon ci foofu ku d'accordul ak moom ni mu demee dóor ko bañ tëj ko noonu la d'accordul ak président Idriss Seck ba mu ñu ko lâche nga walla nangam ka dañ ni c'est la liberté vraiment gis nga dictature pensée unique mm. ak ay yenn prétention yi nit ñi war nañ ko moytu mm. parce que waxuma Idriss Seck mais ñun ndaw ñi mu jiite rek man ak Malal aar lu ñu bokk bërki Dembo Ndiaye ñoo nekk sama oto ñuy jiite ngaas ak policiers yi man moom Alioune Sané li ñuy waxtaan avant ñoo egg ci kële yi ruus naa sax di ci dellusi ci télé mm. donc gis nga prétention yi ak yenn yi nañ ko moytu Edisey dafa kawe par rapport ak station wu malal man jàpp na man ma gëm ni man kese ak moom bu ñuy wax dama koy xeeb ndax ba ñuy tase maak moom ñuy génn kaso ñu joxandoo ñu suñu këyit ñuy génn man dama siggi moom dafa sëgg c'est ça la lâcheté léegi nag la surprise du chef président Idriss dafay rëbb mhm.